asalaamaaleykum mbokki internet bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy faral rek euh, di baaxee di defee saa su nekk nee naa leen Lalla Aïcha ngeen di àndal euh, Moustapha bébé caméraman yi fépp fu ndaanaan yi nekk rek ñu daal di fay fekk jël leen euh, tey nag ñu ngi fii ci seen TV ñëw seet ndaanaan bi nga xamante ni nee naa leen kullu fadilin la kenn dootu ko laajte ci miim réew boo demee ci théâtre bi nga ne duñ ko laajte boo ñëwee ci ci ci ci ci animatrice yi nga ne dootuñu ko laajte muy kan muy mi mignon nag ñu bëri gën koo ràññee fi nga xamante ni moo di boobu di idole Ah, moom lañ ñëw seet tey fas yéene waxtaan ak moom ndax sénégalais nee naa leen dañ ko dañ ko bëgg ndax dafa jong ma mi ñu ngi leen laal maa ngi lay fay bu baax di nuyu sa caméraman ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi actuellement Aïcha mi ñoon ah, bi jiitu ci waxtaan bi dañ lay laaj rek naka nga dundee corona bi waaw corona bi dund nañ ko comme ni ko ñëpp dundee moytu nañu def nañu geste barrière yi nga xam ne moom la état bi digle et puis euh, ba toog kër jotee aussi toog nañ suñu ay kër ba tax na feebar bi dégguñu ko dégguñu ko ci ñun donc ñu ciy sant yàlla bu baax actuellement gis nañ te aussi bu baax ni mu ngi reculer mu ngi jël tànk ginnaaw. Euh, kan mooy Mignon. bon Mignone benn jeune fille la rek bu nekk ci milieu bi bëgg lu muy def wala essayer percer ci li mu nekk. Euh, ñu gën laa ràññee ci série boobu nga xamante ni euh, moo di idol euh, est-ce que mun nga ñu wax lan moo la fa dugal. voilà Mignone Idole par casting laa fa duggee. série la boo xamante ne première saison deuxième saison dama ko doon dégg mais mësuma woon dugg xool à quoi ça ressemble donc un jour la sama sœur doon ko seetaan générique bi en fait moo ma moo ma attiré après ci la la saison 2 ça m'a intéressé ma dem def casting bi puis ça a réussi. mais à loolu mosoo bokk ci benn série. non à part Idoles mosuma bokk ci benn série. ñoom ñoo la xool ba ñu neex la ñu tuddee la mignonne wala dañoo xam ne yow da ngaa mignonne wala yaa tuddee sa bopp mignonne. <laughs> non bi moom dama ko wax temps les raisons sont évidentes avec beaucoup de modestie nag waaw. Euh, après ci biir loolu nga def casting bi ñu jël la est-ce que xaaroon nga loolu. waa xaaroon naa ko d part euh, d'autre part euh, xaaruma ko woon donc maa ngi woon ci juste milieu bi. nga ñëw ñu jox la rôle boobu nga dundee ko nag. voilà ça ça saa été un plaisir ma ma joué ko ak beaucoup de de plaisir et je crois que ça a plu aux ak ñëpp ñoo xam ne rek bëgg nañ idole. Euh, mais tey bu ñu la gisee ci biir série bi euh, nga nekk fa euh, di jouer femme bu nga xam di représenter femme yi nga xamante ni ñoo nekk ci ci ci ci kaso bi ban yëg-yëg nga ci am. waaw euh, d'une part da def preuve d'empathie parce que tu te dis que peut-être ñi ko nekk di ko dund réellement métti na situation bu métti la et que ñoom bëgg nañ peut-être génn ci ci ci situation boobu donc boo ko joué euh, des fois dafay metti parce que quand tu te dis que y a des qui vivent la même chose tu te rends que c'est pas évident mais bi nga ko commencé jouer mosoo ci dajee ak nit mu ne la moom gis na ci boppam wala dund na ko wala daraam dund na ko. non ça ne m'est jamais arrivé peut-être nag mes mes amis wala mes proches mës nañu am yooyu yooyu témoignage mais personnellement kenn mësul ñëw ci man ne ma dund na la même chose. Euh, sa wax kër ñu jékki-jékki rek gis la nga bokk ci benn gang ah <laughs> parce que yéen moom seen group bu bandi ngeen def ngeen def ci biir Idoles naka lañ ko dundee sa sa ñoom yaay sa famille. Mhm, sama famille euh, daf leen bett. mu nekk benn révélation genre beneen facette la ñu gis ci seen doom parce que ay expression yi ma fa doon utiliser par exemple à la maison du utiliser yooyu yooyu expression donc peut loolu moo leen ci xawoon a jaaxal mais en dehors de ça ils étaient contents de moi mais mosuñ ci am dara lu leen naqari. non mosuñ ci am dara lu leen naqari vraiment lépp lu ma mës a rek ñoom bëgg nañ ko. bi nga ñëwee ne leen da ngay joué théâtre tamit compliqué wul. non compliqué wul au contraire dañ ma teg ci axe conseiller ma wax ma nanani nanana parce que genre on voit beaucoup de de personnes yoo xam ne peut-être bu ñu duggee ci boobu facilement ñu dévier mais dañ ma jox ay conseils yoo xam ne képp kuy kuy góor ak képp koo xam ne am nga sa doom bëgg mu egg fu sori ak fu baax conseil ko jox donc loolu lañ ma jox et puis ci li ma li ma gis mais seen gang bi naka ngeen ko dundee ci bi ci biir kaso bi noonu ak ak tànjaa la xaw ma <laughs> <laughs> xaw ma Assane ngeen di def seen yëfu wëyu est-ce que bu jeexee yéen doo leen toog ah di xaw a xaw a jaaxle ci seen bopp. ay ree moo ñuy jàpp parce que la plupart du temps dañuy bàyyi texte bi fële jël suñu ay mots tu vois di wax donc ay ree la ñuy def temps aussi ak ces termes et tout daf ñuy reetaanloo donc day cool quoi day day day mel ni famille lañ et tout alors que c'est la première fois ñu daje ci ci saison 3 wu Idole et puis je crois deux fois la ñu ñun ñëpp ñu ñu ñu miinante et puis déggante moom entente ma leen ni saluer waale de ñu nekk ay nit yu baax vraiment. leen doon jox ci ay textes yëpp da ngeen ko doon baxañ indi seen feem ñuy jël suñu idée générale taxañ moo yi fee jël suñu mooyu boobu indi da ngay refatas <laughs> ay booyu terrible kay ayca mhm. euh, léegi nag bëgg nañu xam kan mooy Mignone turam Mignone fan la juddoo fan la yaroo voilà Mignone man Jeanne Mendy laa tudd euh, je suis née à Guédiawaye vraie banlieusarde et jaar naa Pikine voilà amee sama BFM euh, après je suis venue aux J'ai eu et puis voilà ma jaar INSUP Afrique pour ma formation en communication journalisme. yaa ngi géej waay ba non jóge na am xaalis tuxu bàyyi yéen artistes yi da tàmm loolu. maa ngi si bool maa ngi parcelle. <laughs> non da leer na ma ne mu ñëwoon waa géej waay gëj nañ laa seen. non non non pas c'est juste que depuis toute petite laa fa jugee rek depuis ma nekk xale laa fa jugee mais bon ñoom dañ may xàmmee ci écran bi parce que ay la banlieue ce sont des personnes tellement soudées que seen doom fépp nekk rek dañ nekk nekk ñoom ñoom ñoom kii tàndkaan ak doomam bi góor a aussi ci milieu bi la nekk ma koy bisuwaale bu baax a baax. d'accord mhm. euh, naka la def tey ba nekk animatrice. ak lan moo ko dugal biir Sen TV. d'accord loolu aussi par casting la. comme après moom bac, j'ai fait ma formation communication et journalisme. Donc, euh, m'a appro approché euh, Jean, Jean Dossé, quand je lui ai fait part que de mon bug, euh, nek, euh, animation et tout. ci la ma boolee ak borom kër gi après casting am ma ñoo def casting bi et puis ça a réussi aussi. mais mosoo ci am benn problème yu ci mel ni Moustapha nuñ koy waxee promotion canapé. ah foofa toj mosoo ci am genre problème yu mel parce que dafa bëri ci milieu. non promotion canapé moom yàlla non non mosuma ko dund vraiment mosuma ko dund maa ngi ñaan yàlla ma nekk ci milieu ba ba génn ci te te du ko mës a dund parce que. affaire la boo xamante ne à chaque fois nga dégg ay fii di témoigner ci chose boobu daf lay metti personnellement même si dundoo ko donc j'imagine man su ma ko naroon dund naka lay mel donc may ñaan yàlla mu musal ma ci genre nit yooyu ba du ma taseex euh, lan ngay wax tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy dund ñoom moom seen i kër di dund genre yooyu. Hmm, ñi nga xam ne ñoo koy teg nit ñi wala fii yi koy subir. voilà ñi koy teg ñi ñu xam ne fii àddina la yëg yàlla bu la mayee dara du jour au lendemain mën na ko reprendre parce que moom dafa abale rek tu vois demander de l'aide ou di liggéey je crois que le mieux c'est nga may leen nga accorder loolu parce que wërsëg suñu borom daf koy jël di ko jaarale si ay nit donc yow moom moo wërsëgu nit ki si tu peux pas bàyyi ko mu dem tu n'as pas besoin di ko def ay promotion canapé c'est euh, que c'est pas c'est deal en fait c'est pas le deal et puis même boo ko nangoo ëllëg di nga am tour et puis ça va donc mieux vaut nga nga nga bañ ko accepter c'est pas le deal sa wërsëg fi mu nekk rek di nga ko fa jëli Euh, Moustapha dama dégg si benn waxtaanu ñoon mu xas leen yéen góoru Sénégal yépp ne góoru Sénégal bu ñu la buñ gisee bant bu woddu sër sax ñu daw sa kaw foog ne jigéen la maanaam dafa bëgg a wax na yéen da ngeen bëgg jigéen loolu nga. ay waay ay waay mais normal góor yëpp bëgg jigéen góor bu bëggul jigéen lu muy bëgg normal mais euh, dama leen doon sànni ay picc rek c'est c'est vrai aussi ah. parce que dégg naa dañ la sonal. waaw sonal nañ ma mais bon dañ koy sante yàlla suñu borom parce que peut-être boo romboon ñu ne cam <laughs> doo du lay gënal donc loolu dañ koy sante yàlla suñu borom et puis voilà daal di continue. d'accord mm-hmm. euh, dégg naa ci sa beneen waxtaan nga ni euh, am nga copain mais sa copain bi dafa fiir ba pare yorul dërëm <laughs> man nag <laughs> yorul dërëm bi waxuma ko ko. Moussa Ba miñoon da ne faram dafa fiir ba pare yorul dërëm. Eh, ci jamono yooyu mu Mignone nekkagul star de léegi Mignone mooy bomb léegi lenn laa bëgg a xam Mignone waajooju moo fi ne ba léegi am nekkatu fi. non euh, premièrement damay indi rectification j'ai pas dit yorul dërëm j'ai juste dit que genre. yorul ah, xaalis non j'ai pas dit amul xaalis. moom nga wax. da nga ne amul xaalis. <laughs> non amul lu lu lu nit ñi amul melul lu nit ñi amul mais je suis avec lui je fidèle mais genre ay nit yuy ànd ñoom ñooy tàkkalikoo donc yàlla moo def li gën man ak moom on est plus ensemble. Ah, da ngeen tàkkalikoo. waaw on est plus ah, ensemble. ni ko waxee non man dama fidèle man. <laughs> on est plus tàggatoo moo jot mu dem ma dem. da nga nekk star bàyyi ko. non même pas même pas même pas. wala tooñ. bon tàggalikoo moo ñëw ñu tàggalikoo. <laughs> ku nekk dem ko voilà chacun chacun refait sa vie et puis la vie continue. leen boo leen nekkee star bàyyi seen faru dem àddina mu mais <laughs> non yow ko wax loolu nga bëgg am problème. bu <laughs> ñaan euh, euh, dégg naa ndeysaan ku ku ku ku bëggoon sa papa nga euh, da ngeen a niroo lool lool lool lool tey nga gersu gisatoo ko lan moo la gën a màkk ci moom. la gën a manqué ci moom. waaw mën naa ne bi muy génn àddina sax xàmmeewu ma boobu xàmmee du coup euh, du ma am peut-être loo xam ne dafa may manqué ci moom sauf que maa ngi rappelé wu ay yenn flash yoo xam ne peut-être wàccoon liggéey. à l'époque ñun ñëpp parce sama papa dafa njaboot ñun ñëpp ñoo nekkoon ci benn kër bi donc tous ces enfants bu doon egsi rek dañuy daw envers moom donc dafa doon indi beaucoup de choses moo ñu koy distribuer peut-être loolu maa ngi koy fàttaliku parce que bi muy décédé j'avais euh, quoi 9 ans si donc loolu maa ngi koy fàttaliku peut-être loolu moo ma si manqué sinon euh, euh, amour paternel dama koy soxla des fois des conseils de mon papa mais bon yàlla li mu def rek moo gën et puis euh, dama koy accepter que di ko ñaanal fi mu fi mu dem gënal ko fi mu jógee et puis voilà di ñaanal képp koo xam ne aussi euh, ñàkk nga sa waajur que ça soit bu góor ou bu jigéen fi ñu dem euh, gënal leen fi ñu jógee voilà mais yàlla aussi may na ma beneen papa boo xam ne jooyu ma sama papa bi dem mën naa wax parce que kooku vraiment taxawee na ma fépp vraiment bu ma egsee fii tey loxoom mi ngi ci parce que jógewul ci ay conseils jógewul ci ci ci jël alalam def si man voilà fépp fu dem rek mu ngi ci man ñu koy François Correa et ma koy visité bu baax a baax. je t'aime euh, bi ñuy wax ne da ngeen niroo woon ba say frère sax dégg naa euh, ci yow la ñuy xool seen papa est-ce que loolu am na. oui c'est vrai sama papa man tey bu ma nekkoon góor dañuy ne peut-être jumeau woom la tu vois dañu dañu niroo tellement. voilà on som ressemble niroo mag rek sama yaay. mu wax lu am solo ba tey rek ñuy ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëddu euh, comme saa su ne rek niñ koy defee yàlla yërëm leen euh, te xare leen àjjana suuf seen kaw mi ñoon ñu dégg ci sa benn waxtaan nga ne tele euh, dafa lay ubbil bunt yu baree baree bari comme sénégalais yi dañoo am kersaw nit kuy génn télé est-ce que mën nga wax yan buntu la la télé ubbil après bi nga jógee ci yooyu ak yan buntu moo tëju woon ci yow. voilà par exemple di nga jóg di du ma fi nekk peut-être di di di citer parce que y a une chose mais li nga doon régler avant ngay nekk par exemple mignonne quand tu étais seulement jeune li mu doon dëgëree tey jii boo demee taxaw par exemple ci benn ci benn entreprise nit yi bu ñu la xamee déjà rek benn benn porte la da gis dañ lay privilégié on t'appelle parce que nga ñëw toog machin affaire yu noonu du coup y a beaucoup de ci par rapport à loolu télé moo moo mel noonu en képp ku génn télé rek peut sa image dañ lay ragal non du ragal sax peut-être je xaw ma nan laa ko mën dañ lay bëgg dañ lay bëgg peut mbëggeel bi mi ngi si parce que du ñëpp aussi ñoo lay bëgg mais yàlla dafay def Euh, tey est-ce que mos na am bunt boo xam ne fëgg nga ko mu dëgër tey nga fëgg ko mu mu mu doo xaar xaaruñ sax nga fëgg ñoom ñoo lay fëgg si euh, par exemple, ay deal, par exemple, et publicité. Quand j'étais pas mignonne, j'avais pas les deals de, de, pub. Mais quand je suis devenue mignonne, par exemple, ni un produit moi pour me faire pub, peut-être à porte là, yo ramener, tu, tu vois, l'ol Mais sinon, je vois pas autre chose. mu <laughs> ñoon daal da nga koy wax benn mu tontu la benn te toj réew mi d'accord euh, ba tey bëgg nañu xam euh, ban série mooy sa série mi ñoon ban série lay seetaan moom la bëgg bu ma wax idole nag waxal nag waxal rek nag. Ah, franchement sama série idole la mënu ma wax leneen parce que idole genre moo ma neex ba ma dem ba ma dem ba ma dem defi casting bi avant idole gisoon nañ beneen série bu fi jiite idole et pourtant dew ma defi casting bi. Euh, déggoon nañ la fi ci benn waxtaan nga ne maîtresse ni mu commencé neex na xamoo ndax fan lay mujjee est-ce que li nga doon xaar gis nga ko ci. waaw waaw waaw euh, ils m'ont satisfait vraiment euh, li ma doon xaar gis naa ko et puis voilà jeu bi acteurs ni ñu joué tout zéro faute bi ñu bi ñu génnee Sénégal Sénégal dem beneen pays boo xam ne c'est pas notre pays ni ñu leen accueillir ça montre que seen liggéey rafet na et puis mu nekk fierté pour le Sénégal. li nga doon xaar yëpp ci wàllum Marème Lalla lépp gis nga ko. waaw waaw ñoom ils ont assuré ah ma leen di félicité bu baax a baax a baax aussi pour yeneen saison yi ak yeneen réalisation yi. maîtresse ak idole bu dàq. waaw idole de loin <laughs> mais de loin. ah bon waaw <laughs> non du moroom idole du moroom benn série fii c'est la non oui il faut l'accepter hein. <laughs> mais mais est que yaa ngi seetaan yeneen yeneen série yi surtout yu bees yi gars yi génnee léegi mais tey boo xoolee idole li ñuy joué ak yeneen série yi li nga xamante ni moom moo ci am yenn colin yi yenn waxin yi naka nga koy gisee. waaw man je regarde toutes les séries hein. série yëpp laay seetaan parce que ça te permet non seulement yow en tant que acteur nga améliorer wu gis say fay euh, à travers ñeneen ñi lu ñu joué et puis di comprendre bu baax di apprendre yow ci ñoom seen ay jeux et puis ñoom actuellement li ñuy joué lépp vraiment série fi nekk yëpp dañu jóg pour yeete et puis euh, euh, voilà li ñuy def colin bi peut-être jamono moo ko laaj ils n'ont pas besoin peut de jouer loo xamante c'était en parce que tollatuñu ci ci année yooyu moo tax par Euh, Moustapha dégg naa miñoon bu mu nekkee xale ku bëri histoire la woon da nga daan dem école fekk ñaari nit du seq seen mburoog seen nattu crée nga dugg si tas ko parce que nga ne kii daa war a teggi te teggi luñ ko. Eh, natt bu suma bëgg tontintoo àddina mais bon musuma. mësuma supporter injustice aussi bu bu ñu nee bëri histoire par exemple ci côté boobu la côté injustice parce que par exemple su ma fekkee benn nit bu yambar ak benn nit bu am doole mu koy mu koy mu koy toroxal damay damay faral ku ku am ñàkk doole peut-être loolu moo tax ñu naan dafa dafa bëri problème <laughs> mais du du beneen sens bi. mais dégg naa mënuma sax xeex. mais góor ñi dégg naa da leen doon defal ba parce que fas kanam bi la rek nga dama ñaago ñaago laa nag damay fas kanam mooy fas bu mu dëgër. mais bu ñu waxee injustice euh, mignonne mu ne bëggut loolu da ngay xool tey agresseurs yi nga xamante ne ñoo ne ci dëkk bi euh, ñàkk sécurité bi ku wax ñu bëccëg sax dañu yor seen i jaas yi taxaw jam la wala ñu def la benn affaire naka nga koy gisee. waaw lu ñaaw la et puis ñu gis ne dafa dafa bëri dafa bëri torop torop surtout en 2020 2019 2020 agression nekk na loo xam ne mën naa ne euh, yàkk na àddina ñu bëri je sais pas nag lan moo leen motiver pour ñu koy def bu fekkee dañu yaakaar ni ngóora la comme on du ngóora du fulla du jom du fayda tu donc pour man nit lépp loo gañewul par par par par ton travail par par sa doole pour man warul nekk sa fierté parce que gis nit buy dem nga dogaale ko nangu lu mu yor bu nekkee jigéen la nga gaañ ko et yor sa ngànnaay déjà sax yow defoo defoo confiance sa doole pour man loolu du fulla et c'est pas le deal le deal mooy ñafee même avec 100 francs peut-être mën nga si ak benn commerce même avec 100 a xaar bay sa tool donc nañu jóg bàyyi agression bi c'est pas bu ñu la jàppee dañ lay sànni ci kaso bi fàtte la say mbokk ñooy sonn donc il faut des fois aussi ñuy xalaat seen ay mbokk te bañ a xalaat seen bopp. d'accord euh, Mignone euh, ci wàllum idole bi nga xam ne mi ngi liggéey ak ñoom ak seen TV est-ce que pare na pour ñeneen bu ñu ko wee woowee mu dem wala contrat moo ko tënk. waaw pour la série moom euh, y a pas de problème maison de produit bëri nañ fii bu ñu la woowee tu tu peux aller bosser et puis nga ñëwaat ma soxlaa je bu tale bi bu la TFM soxlaa yàlla baax na je passe. <laughs> mi ñaan tontul ci lii yaa ngi seen TV ne bu la TFM soxlaa. télé askan wi la ñu wax de maa ngi seen TV. waaw fii neex na torop gisoo ni ma tool <laughs> neex na torop. da ngaa a taxaw fii bu ko yokk. télé askan wi la ñu wax de. waaw télé askan wi. mais da nga ne ni nga toll nii mais xanaa bëgg nga gën a. non fii c'est la ligne c'est Mm-hmm. kon daal bëggoo dem TFM. ah maa ngi seen TV télé askan wi lan la bàyyi ma nag. waaw la TFM wooyee nag seen TV bon tey TFM wooguma mais bon on sait jamais mais actuellement maa ngi seen TV. voilà. <laughs> ban euh, ban ban ban artiste mooy sa artiste préféré. Euh, jigéen góor. góor. góor ici au Sénégal Wally Diamane. Ah, bëgg nga ñu Sénégal ñëpp bëgg ci comédien yi. <laughs> comédien waa ju baax. Ah, da ngaa bëgg dem Marodi xanaa. non waa ju baax c'est <laughs> <laughs> nom de Dieu la preuve mi ngi fii ci Sen TV en fait. même bu du affaire de maison de production c' est c' est un comédien boo xamante ne même bu moom bu xoolee rek man daf may retaan loo en fait. waaw ak ses termes et tout c' est un gars que j'aime bien. Mm. Euh, ci jigéen ñi Mignone kan Mignone kan mooy idole am. Euh, idole du côté actrice chanteuse. actrice actrice si jigéen ñi si jigéen ñi actrice euh, actrice. si sama génération wu ci mag ñi. parce que idole rek koo ci bëgg. parce que j'aime beaucoup la femme bi nekk euh, à époque Golbert Diagne Marie Madeleine. waaw je l'aime bien cette dame là. waaw mm-hmm. je l'aime bien elle m'inspire beaucoup. Mm-hmm. Marie Madeleine euh, ku ko tudd rek xel yi dem ci gorbel ñu koy ñaanal moom itamit fi mu tëdd euh, yàlla suñu borom jéggal ko te xare ko aljanna am nañ ci moom njort gu rafet ak képp ku nekk ci biir suuf rek mignonne est-ce que pare nga pour sëy bah oui loolu la loolu la bépp jigéen di di ñaan. waxuma lool de taaw jigéen sëy la pare naa pour sëy bien sûr. pare nga nii nii nii. waaw pare naa wol gaay non gaay <laughs> wol gaay <laughs> non du ma def kuy fëgg mais pare na en fait. non ma nga woote nel mignonne pare na pour sëy ku bëgg na ñëw. non loolu gaay xam nañ ko gaay xam nañ ni pare na pour sëy juste que peut-être le bon la ñuy ki nga xam ne moom la ñu yàlla booleel parce que même bu ñu bëree même bu ñu ñëwee du ñëpp ngay mën a sëy et puis euh, il faut juste nga xam ne moom la yàlla booleel nga sëy ak moom. actuellement am nga copain. je passe. eh ah, yow xanaa lépp nga bëgg a passe yow tamit <laughs> je passe. <laughs> mignonne bu dee dëgg la yow jërëg may dégg yéen ay faram. bi yéen ay faram non non non da ngay wax mu leer da ngay wax mu yee gars yi dañu lay tiktok de waxal mu leer. ah ay faram pourquoi yéen ay faram. kon yow faram. man je suis yow yaa ko waxoon léegi tout à nee nga man maa waxoon à l'époque dama fidèle. loolu avant ngay non ñaata ñaata far nga am. benn. fu ne ci biir kër gi. je sais pas. ci idole. je sais pas. da nga war a xam. je sais pas je sais pas benn daal laa mais <laughs> boobu rey na leen yéen ñëpp. <laughs>